ministère de l'intérieur mun nañu wax ne ab pàccoxoo la tey ji ndaxte gis nañu ne lu mat ñaari téeméeri coordinateur ñëw nañu taxaw ngir euh, représenter seen candidat ñooñu rek suñu amee signature dafay dem suñu ko xoolee dina def un million et quelques signatures te loolu suñu ko amee dina wane ne que président Macky Sall d'abord dina dem au second tour parce que ñun suñu liggéey bu njëkk mooy fexe ba Macky Sall du am un second mandat loolu yaakaar naa léegi leer na ci boppu askan bi yëpp ba ca topp mooy li xew tey jii muy force muy filtre boo xam ne Macky Sall ñu ko mettre en place pour supprimer ay adversaires politiques loolu su fekkee ne yaakaar na moo ko nar a may un second mandat dafay nax boppam ndax ce second mandat ki ko nar a maye askan bi la te askan boobu à un kilomètre du palais ñu amuñu ndox. à deux kilomètres ñu fa dëkkee amuñu courant fépp ci réew mi ñu ngi famine te ñooñu nekk ci famine ñàkk ndox ñàkk courant dañoo décider tey wan ginnaaw Macky Sall te ñu ngi koy tàmbalee ci parrainage bi dem ci élection yi mu bañ a am un second mandat incha allahu taala programme yi de ñun suñu bopp teg nañu ko nañu fu mu toll toll ci trente mille ci réew mi ñu ngi wër réew mi fu ne ñu ngi fay dugg dem nañu Fayaako dem nañu Sibassor dem nañu Mbam. dem nañu ca nord du Sénégal Ndioum Saldé fépp daan nañ fa dem nañ ba Fanaye ñëpp population yi tey jii ñu ngi waxtaan ak ñoom ci naka la ñu bëgg a doxalee réew mi ndax réew mi kat li ñu a jëkk def moo jox ko indépendance la ca topp mooy fexe ba askan bi dootul fayal kenn suy faj benn doomu tubaab mais di fayal boppam mais pour mu fayal boppam dama ko nar a may la quatrième licence de yi mobile jagleel ko ko la cay génn ci koom askan bi daal di ko jël di ko fajee ay soxlaam wax naa ne naka la réew mu mel ni Sénégal amul benn hôpital bu am benn plateau de technique relevé wax naa ne su ma toogee ci bopp réew mi incha allah capitale régionale bu ne danaa fa samp benn hôpital boo xam ne am plateau technique bu relevé te na ma ko nar a defee mi ngi bàyyi ko ci ay fonds yu ma link la wax fa d'abord la quatrième licence de téléphonie mobile ak le fonds solidaire bi ma nar a lal ndax kat dootuñu nangu ci réew mi benn nit am ay milliards di ko dundee yow kese ak sa njaboot am na nu mu ko nar a ba milliardaires yi nekk ci réew mi yëpp participer de manière définitive ci lan la ñu a def ba génnee askan bi ci ndóol. man de mënuma waxal ñoom wax waxal leen li ma mën daal mooy waxal saa bopp te waxal saa bopp bi mooy fexe ba li fi jot a xew 1960 ak léegi politiciens yi jiite woon ko bokk nañ ci ay ñoom yoo xam ne ñu ak ñoom ci front bi dama wax ne ñoom ñëpp tey jii li wa mooy ñu dem à la retraite bàyyi cette nouvelle génération ñi nga xamante ne mosuñu taxaw ci politique mosuñoo laale ci réew mi ñooñu la ñu war a bàyyi tey ji ñu am tey ji occasion wan lan la ñu mën ak naka la ñu nar a sukkalee askan bi jot na waratuñu nekk rek ay nit ñu fi nekk defoon politique 1960 ba léegi bi ñu continuer bi ñu tënk maa ngi woo sax tey suñu waajur Moustapha Niass na dem noppaliku suñu waajur Ousmane Tanor Dieng na noppaliku soxna Aminata Tall na dem noppaliku Mahmoud Saleh mi nekk ci wetu Macky Sall na dem noppaliku te bàyyi ndaw ñi jóg dugg ci réew mi génne xel yu bees yi am ci réew mi ñu lan ko ci intelligence artificielle lan ko tamit ci audace di defar réew mi rapidement foofu la réew mi toll mais pas lii ay clientélisme politique Macky Sall daf ko war a dépasser xam ne monde bi doxatul ni mu bëgg doxee moom loolu la war a comprendre